إلا واجعل لنا لكل ضيق مخرجا والله والله والله والله يسر يسر ولا تعصرني يا مفرجا اجعل لنا لكل ضيق مخرجا موضة شيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى وردانا بي آمين كفيرو دقلا يسر ولا تعسر لي مفرجا اجعلنا لكل ضيق مخرجا والله مجد مجد بالاول والله ثم الاخر صل على بحر العلوم الزاخر وصليا بالواسع على رسول سيد الكريم والله والله يونت يونت كوكما يا عين الوجود سيد الوجود صل عليه باسمك المجيد لله لا الحرامي أنا واسك باولو لوخو جمبو لوخو جمبو لوخو جمبو ولا شهدنا

حرامي كوسب مودا كوسب مودا ما الله يجبر تكبر نقطة الحرام الحرام شفعت موجبات موجبات المرام كلنا من نزل لنا بلادكم أرض كوسب ورد ملاك مالك لا تلك ذي الحرام وجبهة الموجبة الملام خيلنا بنصر الحرام حرامي كفك مولى وخل منامي نبي عظيم وعف الله يستره waaye ku bëgg yonent Yàlla Muhammad la def nii loxoy waay billaahi ما قيمة ذنبي إن وافى بغفرانك ذنبي عظيم دقلة واعف الله يستر ما قيمة ذنبي إن وفاء بغفراني والله والله يكون ذنبي حقيرا لا وجود له كدرة في محيط فما كواني يا حي ذا الجلال والكبرياء والكمال ومنتهى كل شكوى مولاي معطي إيسار وضعف مع ذلة واضطهاد وعنه ليس عليك يا ذا المعالي ولا تخيب رجائي ضربت يا إيوانا إليك مع حسن ظنون فيسر الأسعاد كنت أفعل يا إلهي حسود العقاد وقاسم كل ذر عنا شديد الوعاد إني أصبت بدار اللطيف يا متعال شهر هاد أطرابي سبار الليلة وفرع أطلب جسمي مولاي يا خير والي ونزل بالطبيب حميد الفئاد ونجنا من شرور البلاء والداء يا أحمد خير ورى وصحب الوالي وشيخنا في المزايا أشرق الرجال ولد الحزمان شايف سوق غسلي في معالي كالخليفة معقول منا في الضلال وسيدي أحمد المنصور عديم المثال كذا صغير حبيب بجاههم لنرجو سعادة كل حال وموتنا في الطريق عن الظلام مولاي صل صلاة تسري بأمر الله على شفيع الغرايا أحمد شمس الزمان جند ضعيف يا حي يا ذا الجلال ما طلعتك جل الإسلام يا حي جل الإسلام يا ذا الجلال ما قال ما بالله عبد تضعيف يا حي يا صدق ما سن لغيتك

عبد الله ضعيف يا حي يا ذا الجلال عبد ضعيف يا حي تصب عبد دفنني صلحتك وما خال عبدك يا حي يا الجلال ما خال ما عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال ضعيف يا عزة تصفي النبي من الكلمة ضعيف يا حي يا ذا الجلال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال ما قال عبدك هذا يا حي يا ذا الجلال سيد الحاج عبد العزيز يا حي يا ذا الجلال ما قال خير يا حي سيد العاجل عبد العزيز مالكنا يا حي يا ذا الجلال ما قال ربك هذا دقل دقل دقل دقل دقل دقل دقل دقل دقل waaye ku bëgg maam Cheikh El Hadj Abdoul Aziz borom 40 ans rafet loxo yi waay billaahi yaa hayy yaa jalali مقالة ضيب يا حي ذا الجلال النبي ما قال عبدك هذا يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد غيب يا حي يا ذا الجلال يا رب بالمتوجي دقلة حبك قوي عوجي ونجني من حرجه يا ربنا واشرح منه على صفي الأصفياء waaye ma ne xanaa fii amul soppey maam Cheikhul Hadj Abdoul Aziz Dabakh. billaahi yonent bi mooy xaatimi nabiyil anbiyaa ahmad taajil atqiyaa salli ilaahi sallimi salli ilaahi kullamaa tatla najmun fi samaa على نبي قد صلى حبيبك المحترم عليه سلم طلع بدر وما بر كلما وقام عبد الورقه لله في معطي الوسم الغجاج يبدفني no magal yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Al Hadj Abdoulaye Sy Malick nee yal na Yàlla dolli leeram te taas ñu ci barke ak ku ni amiin amiin maam da baax ya rabbana salli ala صل على المخاطب أحمد بالمناقب والعز والمراتب سراجنا المفخم صل على الدرجات والمعجزات الباهرات أحمد الجل الصالحات وصحبه وسلم محمد الأمين فهو نبي الرحمة يا رب ما إمام كل نعمة مصدر كل حكمته ملجأ كل زائمه رفيعنا خير الورى moom dong la yàlla jox kat li waa di ko حسن صلاة في المحكم لي في دار المقام دار الأمان والسلام دار الفلاح والإيمان دار الهدى والعصم صون ديننا الحنين في حفظ ربنا اللطيف أكرم بالجاه المنير أحمد الصالح شيمي محمد أنك سخيا عمدتنا قدوتنا يوم الجزاء زخرنا يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء

يقول لا يوم الجزاء لا يوم الجزاء لا يوم الجزاء يوم الجزاء لا يوم الجزاء يوم الجزاء Superman, الجزاء سخرنا يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء سخرنا يوم الجزاء سخرنا يوم الجزاء سخرنا يوم الجزاء سخرنا يوم الجزاء سخرنا يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء dana yowal jasa baba dana yowal jasa dana yowal dana yowal dana yowal jasa. يوم الجسائب فرنا كل عباد فرح صفيا الجسائب يا بالعباد فرح حمد من جسائب سيدنا محمد جزائر بالعباد فرح واي محمد سيد القولين وذاقلين والفريق خير من عرب ومن عجم يوم الجزاء بالعبادة فاختقوا فمبلغوا العلم في أنا بشر وأنا خير خلق الله كلهم الجزاء أنا أسبي أن الله خيتك ترى كل جيران بذي سند المزجتنا أنا جرى من مخلتنا بدم الخيام بدم فتى بدم يا موجزة لا إله إلا الله بس بس سلام مزاج جدم أنا جرى من مقلتنا بدم الخيام بدم فتى بدم يا موجزة Isa pusaka Muhammad toga Jihad bilis سلام مزاج تدم أنا جرى من مقلد نخلق يوم الخيام يكون فلك جدار يوم الجزاء لا إله إلا الله أذهبت الرؤون تلقائك بمدى أو مدى فرق في الماء من بقسم صلحيت الليلة القسم صلحيت لعينيك إن قلت كففا أبدا وما لقلبك إن قلت استفر يجب يجب يجب يجب يا الجزاء الليلة بالقسم صلحيت قلبك صلحيت قلبك Jumagal yanda Jumagal yanda Jumagal yanda Jumagal yanda Jumagal yanda Jumagal yanda Jumagal yanda Mani aylayka kunta mfuha amata wa maliqa bika in kuntastafi ya jibi ya jibi ya jibi ya murtaza la ilaha illa allah محمد أبا لم ترق دمعا على طللت ولا أرد تبي ذكر البال وال على على يا الجزاء لا إله إلا الله لم ترق دمعا على طللت ولا أرد تبي ذكر البال وال على على على الجزاء لا إله إلا الله فرح la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la waaye ku bëgg maam Cheikh Alhaji Abdoul Aziz na yëkkati ñaari loxo yi ma gis waaye radiyallahu ta'ala umratuna qudwatuna waa sax mbaaw kan moo fi gën a bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawma kadhari fakhruna bihi al ibada farhamin النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم waaye ku bëgg ziar ji yëpp yàlla Muhammad na def ne ñu màggal ko waaye jar na ko de billahi alhamdulillah alladi bi jalali أحيانا مودينه بمحمد والله والله والله والله الحمد لله الذي بجلاله أحيا الأنام ودينه بمحمد واي خنا في أمور صبي دباخ <laughs> alhamdulillahi alladi bi jalali jol makka ahyalana wa diinu bi muhammadi alhamdulillahi alladi mustafa ijalaali yonent bi da na ci tànt bi ak Sidi Ahmed Tijani ak Chérif ahyal anaama wa diinahu bi Muhammadi e waa Zac Mbao 2019 lan gëj a gàmm corona jaar fi kornu ñun ñëpp 2020 moo tax gàmm yi dañ koy boole deux mille vingt vingt et un ak vingt deux def ko benn gàmm moo tax ma ni Zac Mbao tey mu ruppuj puuj ku sopp sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ni ñu màggal borom bariyeeru leer ba ca Medina waaye sallallahu alayhi wa eh, sallam ana soppe yonent bi ashraf alxalqi jarnaak lam yaxluqi rahmaanu لم يخلق الرحمن آدم والذي من نسلي لا لحب محمد صلى الله عليه وسلم يوم ينتبه صلى الله عليه وسلم رأس العلا في المجد رأس محمد النبي أذن وعي الوحي أذن محمد أنا كبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي واو أشرف الخلق نبي نبي نبي more soxna suy xunooy wala ci boori teen nga xalaat ba yooy sa toog di jooy ngir doom jarot ca biir mbëndëm nabi nabi ñëw tiim teen ba taxaw tallal baaraam ba ndox ma daw dëgg la ba yëg fi tuuru mel ni mbaaw soxna sa yéemu for goneem mu naan ko yaay bul yéemu lii yéemul ëllëg na may jële mindeef safara tàbbali aljana ku bëgg yonent bi rommul ay yëkkatil sa loxo nim amal nabi sallallahu alayhi wa sallam na sàmm ki nagam ndax laa na garab ga wax loona mbëttam yéen yéefar yeeg seeni xaram kii déglu jooy bakkanam ana ku bëgg yan bakkanam loxo ca kaw ci dikkal ku sopp yonent loxo ca loxo ca kaw ku ci fitta su loxo ya nga nga naan kom kom ca aljana ci kom ko loxo ca kaw saase bi yeexe loxo ca kaw ana waasak baaw ci fitna su daanay waay Mamadu Lamin ku bëgg yonde loxo ca kaw ku soppi yonde sa loxo yi ca kaw Seydina Muhammad sa loxo yi ca kaw sa loxo ca kaw magal yi loxo ca kaw eh, magal yi ku fi gën a bëgg Serigne Babacar Sy yëkkati loxo ca kaw magal yi ku bëgg jóge jinne da daanu bopp jóge julli daanu bopp jóge julli daanu sidi julli daanu bopp jóge julli daanu waday xeex julli daanu si jaday xeex julli daanu julli ma juttu julli xaanu aswaana juttu julli aliyum tunaala way tunaaliyum waday ji daanu soo waday xeex julli daanu Dina Malawi, Dina Malawi, Dina Malawi, Dina Malawi, Dina Malawi, Dina Malawi, Dina Malawi, Dina Malawi, Dina Malawi, Dina Malawi, Dina Malawi, Dina bëgg Seriñ Babacar Si yëkkati yëkkati loxoy jàmba dina la way di gaw na seetee dina la way dina la

daano dino tunde daano dino bëgg daano dino fecco sofu daano dino fecco daano dino fecco tunde daano sadaiga tunde daano sijadaiga tunde daano tunde daano khaswala tunde daano علي مجدا لحجتك كسبها تنادي من الجوار فتبت الرسول وأمت حسين أنا أسلكي وجر أبد خادر جيلاني تتستر شيخ تيجان شريف بالأنفاس شيخ تيجان بالأنفاس شيخ تيجان بالأنفاس شيخ تيجان بالأنفاس شيخ تيجان بالأنفاس loxo yi ci kaw fas wa daw xaar mu gëna ak tuuna xa ca kaw tuuna xa ca kaw tuuna xa ca kaw tuuna xa ca kaw tuuna xa ca kaw tuuna xa ca kaw tuuna fa jógey tuuna fa ko tuuna la way tuuna li madami baayu Mustafa ba ay ci noonu Mustafa def lan te nak ñam ha ka ga rey ko rey ka kan kan ka tan ku ba jógey tuuna fa ca kaw tuuna fa ca kaw loxo yi ci kaw

mam abdullah alis yakatin yakatin ku sopp yonent loxo ca kaw ana waa zakka ku bëgg yonent loxo ca kaw ku ci fittasu son waa zakka fittasu leen ci mamadu lamin ah. ana ku bëgg loxo ca kaw imam jiit ku ko seexal sëriñ am doy ku ko seexal oh, soo ko digal di ko doxalal fii ci Zambaaw naas ku bëgg eh, loxo ca kaw waa Zambaaw jug leen taxaw màggal yonent bi jar na ko imam imam imam jiit la di maam jiite ku ko seexal Serigne Abdoy ku ko seexal joko digal di ko doxalal fii ci Zambaaw ku bëgg yonent loxo ca kaw na waa Zambaaw jug la taxaw la koy yonent imam jiite sama waay la imam jiite sama waay la imam jiite sama waay la imam imam cey imam jiite sama waay la sëriñ am doy ki ko seexal joko digal ni ko doxal fii ci zambaam ànd naag moom ba maram ah. sëriñ Zubayru seexal loxo ca kaw kanam loolu leer na Seex Tijaan loxo yi la wara faas naas ku bëgg yoon loxo ca kaw ku sopp a loxo ca kaw ku bëgg yonent loxo ca kaw ana waa sambaaw yëkkati di daanoo di daanoo di daanoo أسوى بيغا زجا بيغا أسوى بلدم تطو خصوة تطو بابا كرقي دكو بابا كرقي كل كتو سرين بابا كر لن كتو بابا كرقي كل كتو سرين بابا كر لن لتو أي سماوات كل كتو سرين بابا كر لن لتو بابا كر يو كل لتو سرين بابا كر لن lanu ko tudde sama waaji kunu ko tudde Babacar lanu ko tudde Babacar Gueye kunu ko tudde Babacar lanu ko tudde Babacar Gueye kunu ko tudde waaye xanaa fi amul soppay sidina Ali Badara karrama Allahu wajhahu Ali lamma qabalta bi aynayhi wa kiltaahuma rambaa'u Badara ruuhul wujuud sidina Usmaan Zunnurayni Cheikhuna Tijaani Barzaqul Baraa waaye ma ne xanaa fii amul ay taalibe cheikh <laughs> ruuxul wujuudi شريف برزق المرازق وقطب الكون مركزها شيخ إلى الناس أوي أنا كان مغرى بك مولانا سيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وما ظنونك باليد الذين ضمن شريف برزق المرازق يد النبوة هل يبنى الأساس الذين ما لم ما لم يحوي بشر والله من العطايا ولم يعرف بمقياس جرجس. إيه. taalibe cheikh ana taalibe cheikh yi waaye ana ñu bëgg Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif liggéeyal ci métier mu fanqal la gàcce lu leen yàlla seddee ndax la lu day Cheikh xanaa xamoo ni bu nu waxee Cheikhu Tidiane boo waxee Cherif boo dee jigéen boo amul jëkkër di nga am jëkkër ca at ma <laughs> boo amul wujj doo am wujj inshaallah ndax Mawlana Sidi Ahmed Tidiane Cheikhu Tidiane Fass yeneen ci bay maamam moo ko séddaloo cheikh di sedd wali ah. cheikh ku mu seddul doo seddu di radiyallahu ta'ala anhu wardana bi amin dogat ci biir al mawis mukunal gaañi yemu ci yow nan la cheikhu waaye xanaa fii amul soppay Cheikhu Tidiane yaan raw dafa yombul nu wax bay naan alquran di sa cër nga lante lay buur laay xarit lan taxaw xarit gën ci biir wallaay ku nga ko waxat déwén dégguma leen wax leen wallaay wallaay wallaay dama bëgg wallaay jirir ba waa waawan dégg wallaay bu riiree waati waawan dañ leen di dégg wallaay eh xanaa bëggu leen ma wéy leen cheikh ana góor yi sax baaw ku bëgg a ziyaar Sidi Ahmed Tijani man yëkkatil sa loxo ma xool ma xool ca kaw ku bëgg a ziyaar cheikh ne yëkkati loxoom rek ma xool xarit leen taxawal seet lu gën ci biir tuur walla ba gis rekk yi fi woon saw bu yaaya woon boot walla ki daal ak ki weer ak petax mu naan woo i jaaji rëkk kama dégg naa ba wan ku wallaay dama joruti ni jooyul te mbokk li ngi jooy wallaay dekon sax ma jooy ay di xeej tooñ ku fi gën a bëgg loxo Babacar yëkkatil sa loxo wala ku bëgg sëñ Babacar yëkkati loxo ma wayal leen wala Babacar ku ko sopp da ngay texe fii ku bëgg sëriñ jugal taxaw te wax lii xarit tey taxawal seetlu gën te biir tur wala nga gis rek yi woon sopp yooyu woon wala xéewal dal ak i wel ak pitax di jooy ngir ku ko dégg naa ba woon kuuj walaay dama njortu ni jooyul te mukk li mi jooy walaay dekkal sax mejanaan ay lexem di xet tooy walaay pitax sax taxu maa jug ne ko fi ñuul te bañ ko ayibal ndax ni laa ko fekkoon walaay dindaa loxo loxo jalaanaan moo waral ba ma jug tey di fent aw taas Cheikhu Tijaan Cherif la ko dul rabbaat wallaay taajul aarifi lay way ci réewi Soodaan wallaay Cheikhu Tijaan Cherif la qutbu rabbaat wallaay taajul aarifi lay way ci réewi Soodaan laa iñaanul soxorul te lu Seexu Tijaan kuy sa taalibe lay door a jàpp sam yoon ku fi gën a bëgg sa Tijaan loxo ca kaw loxo ca kaw loxo ca kaw loxo ca kaw loxo ca kaw loxo ca kaw ca kaw ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj wala Cheikh Tidiane Chérif Diarra ànd ak bala ñuul jaaj loxo yu ko ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj loxo ca kaw ca kaw Babacar Diarra ànd ak bala ñuul jaaj wala ku fi gën a bëgg Serigne Babacar defal nii ci moom wala ana sa bay Serigne Babacar yëkkati leen loxo ca nag wallaay sëñ Babacar ku ko sopp dangay texe fii Babacar ku ko sopp dangay texe fii wallaay wax leen ni jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar wallaay jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar wallaay ku ma wayal leen wallaay dangay texe fii yow dangay texe fee wallaay ana ku bëgg Allah ji Mansour la nu uufal maam Maodo wallaay ku bëgg maam Mansour yëkkati loxo wayal leen wallaay Allah ji Mansour fu ko soob dangay texe fii wallaay ana ku bëgg tabax maa ni defal di ca kaw wallaay ci barkaan wallaay ah. Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif barzakhul manaziq joodoon ya masma'i ruhi joodo nen joodo joodo joodo fuadi Cheikh هيكلي قلبي شاخ وعيني جثتي ولساني يا مسمعي فؤادي هيكلي أنا كنت gën a bëgg Mawlana Seydi Ahmed Tidiane qalbi wa ayni ndeysaan difati wa lisaani yaa marwati hijri wa baaba salaami masawaaya mizabi wa rukna yamaan ndeysaan sama xarit la sëñ Fallou Seck xam naa ko bu baax nusuki wa ifraati wahdi fidyati ana ku gën a bëgg mawlaana si raxmana tiijaani wa mutawifi wa tamattu'i wa iraani cheikh cheikh antal malaadu lana wa antal murtaja cheikh yow mastidadi hawli wal ahzani ya mashmal mahrayni ya قد منبع العرفان يا ابن الرسول شيخ xam ngeen ni sunu sëriñam mën ci gaañi maami Chérif Hamza moo mën ci gaañi sëñ Babacar a ko wax waxuma ko sëñ Babacar si moo ni shuyuuxi fa qawlul xaqi munfaridaan min xadaratil xaybi inna rabba alaaw nee na ba sëriñ ya dajee ca kaw ñoom ñëpp ba nu toogee danoo ñëw jébbalu ci cheikh kan moo ko seede inna rabba alaaw yaa masbal bahrayni يا علم الوداع شمس الحقيقة منبع العرفان يا ابن الرسول yaay sëtu gën gi mbindéef te tekkey daloom ca ngeneel yaa ki may Seexu Tijaan mooy sangu lawliyaa yi moo leen raw ca yàlla te gën rëy mbir ci démb ci tey Cheikh Tidiane moo leen sut ci xam-xam mën leen ci diine gën leen set yére Cheikh gën leen xay moo tax taalibe Cheikh dafay civilisé rafet joñe bari feem boo ko woowee mu naan la labbayka ñooñooy waa kër Cheikhu Tidiane Chérif bi yaa mataroy sa wer di wee jarangoy seen ndel bi neex na ta doy sab du xaaraani sa wer di wii ku ci ngoy te bàyyi woo ka ba dee doo gis ci sa xabru luy ragloo ka xiixaane yablu rasuuli yablu rasuuli wa xisbahu wa xisbahu wa amiinahu wa amiinahu waziri wa sheykhi Ahmad Tijaani يا عالي الأقواب والأغواث والأوتاد طرا غوثنا الصمدان كفي ولي شيخنا يتب يا من يمد العارفين bi faylihi eh moo bëgg a ziyaara ji Mawlana Seydi Ahmed Tijaani biidan wa suudan duuna ma nu quraan alhamdulillahi alladi eh, ñun taalibe Cheikh sant leen yàlla alhamdulillah alhamdulillah alladi qad xasana min faydihi bika bajat al asmawaani bika xasana al mawla al azizi maratiban لم يحوها أحد عظيم الشان الله الله الله يحكم ما يشاء كما يشاء في ملكه فردا بلا معوان وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء wallaahu dul fadlil azim yàlla yàllaay jël def ko ci ku ko neex ngëneel la yàlla jël def ko def na ci mawlaana mawlaana Sidi Ahmed Tijaani yàlla na ñëpp am jàmm